l'investigation criminelle a de euh, convoqué convoquer ki n'a xam ne Modi Jobsi et sa fille Nous voulons doon xalaat ni euh, peut-être euh à convoquer convoqué pour les na xam ne Modi gestion Covid bi mais d'après Jopsy, euh, mon nekk euh, euh, maire bu maire bu exactement qui a nga convoqué euh, par la division des investigations criminelles au cours d'un entretien avec les enquêteurs Il xamni duré na d'une trentaine de minutes ñewat na si coow li nga xamni ni itam afan moo tax ñu ñu convoqué ko euh, si ben particulier en 2019 Niel euh, ay mbiru camion moo ñu convoqué ko waaye nee na ko convoqué ça n'a rien à voir avec euh, justement la campagne de réduction des comptes jamono ji nga xam itam ñu bari doon neen wax que ni fu mu ni PGF c'est entré c'est maintenant si li na xamné que modi fond Covid exactement alors donc d'après li na xamné que modi di job si source bu officielle li waral sa convocation mais mom loolu la dénk suñu naataangoo yu Dakar ak que ni loola waral ñu di convoqué a après cela elle a été relâchée par les éléments justement de la DIC ba justement de sa convocation euh, avec sa fille des division des investigations criminelles oui euh, c'est tout à fait normal parce que tu es la fille, nekk. Mm, mm. sénégalais lambda droit porter la plainte la porter plainte c'est tout à fait normal parce qu'entre-temps, beaucoup de choses ont changé. La justice a changé. Les personnes qui ont justice justice ont changé. <laughs> Donc voilà. Parce que plainte particulière, non, mais commencé à instruire. Non, il y avait beaucoup de plaintes particulières qui ont Macky Sall. Macky Sall, moi, je suis procureur. Mm, mm. Parce que nous, nous, nous, nous, top nous, nous, nous, ce que c'est Macky Sall. Les amis de Macky Sall, quand nous, nous, top, c'est Macky Sall. Quand de plainte direct plainte direct ba jamais au plus grand mm-hmm. jamais maintenant <laughs> ces plaintes là commencent à refaire surface boo jàppee ni que diw daf la tooñ nga dem porter gi ko plainte fu mu mbaxane doonee c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal même loolu dafay wone les lima lay wax souvent dafay wone li ma lay wax souvent mm. ni que personne n'est intouchable dans ce pays ku est tu intouchable dans ce pays parce que la loi sénégalaise dit que tout le monde est égaux devant la loi la justice est impartielle hmm. et agit au bénéfice de tout le monde la justice est impartielle la loi est impartielle hmm. et la justice est rendue au nom du peuple c'est ça la justice moo tax man su ma jotee ak fallu ma yaakaar ni que fallu daf maa tooñ mënumaa def justice sama bopp loolu loi bi daf koy bañ fallu su ma tooñee ma mënumaa def justice sama bopp parce que loi bi daf koy aaye mm. loi bi ne ma boo jàppee ni que fallu dalaa tooñ da ngay dem fu mu mbaxane doone benn nga porté ji ko plainte point loi loolu la reconnaître nul ne peut faire justice soi-même mm. mais enfin euh, tax ma ñëw euh, ma ñëw moo nga gis nit ñi di dem déposer ay plainte que ça soit avec Bah que ça soit avec Ahmed Suzanne Camara que ça soit avec euh, Jérôme Bandiaki que ça soit avec euh, Doro Gueye Adama Faye keneen ak keneen ay nit ñoo xamantene, ñoo ñooñu daf leen linja, ñoom ñoo ñoo déposer seen plainte yooyu Mm. Donc, il n'y a pas de règlement de compte dans ce pays, mm. encore une fois, Il n'y a pas de euh, règlement de euh, compte. Mais, euh, la plainte Bouyobo Diopsi et sa fille, n'est l'État du Sénégal, n'est mm. le procureur qui s'est autosaisi. Dédit. Ay nit entité privée qui porte porté plainte plainte bonne la demande oui.

Oui, oui, oui. règlement de compte. Il y a même pas de règlement de compte dans ce pays. Il des comptes. Là. Moi, def c'est ça la réalité Sénégal c'est un petit pays qui fait 18 millions d'habitants 18 millions d'habitants hmm. un petit pays dans l'Afrique de l'Ouest D'abord comment ça se passe le Sénégal c'est un tout petit pays de 18 millions d'habitants, des gens se permettent de détourner des milliards. Ben nit ñu ne la dafa détourner 29 milliards wala 30 milliards wala 94 milliards wala leneen. Et vous n'êtes même pas compte. Yen yen yen. Rousseau len amoo leen ruusukaay. Dans un petit pays comme le Sénégal, yow nga détourner khalis bu toll noonu nga ne yow da nga koy da nga koy lekk yow ak sa njaboot. Hmm. Bàyyi nit ñi xale yi di mangali di immigration malheureusement ñi détourné ñom ñoo nek di wax ci immigration bi ni que Diomaye dañoo laji Sonko dañoo laji réussir ñu à stopper l'immigration té ñom ñu ngi togg ci ay tëdd ci ay milliards et milliards ñom oui té ñuy critiquer loolu ñom ñu ngi tëdd ci ay milliards et milliards et milliards. ok lu ñëpp bokk lu ñëpp bokk yow nga jël ko yóbbu ko sa kër nga ne da koy dundee yokk sa njaboot mm. li ñëpp bokk bu ñu nee dañuy topp ngeen ne mbiru fayantoo la parce que entre temps ces milliardaires là ont payé une presse alimentaire pour dossier bu ñu yëkkati rek presse alimentaire bi jóg di naan non dañoo bëgg a faagaagal diw. non non euh, non c'est ça c'est ça c'est ça non si si si si si si. si si non non non man man d'accord mais su ma bokkee ci presse bi mais presse ak presse am la. yow dem ba gisoo benn benn ñaari journaliste yi toog ci plateau di wax ba wax ay ay njombe man sax dama ruusoo ñu jaaraat ci loolu. nan da nga doon gérer xale yi ay affaire non mu ne ko ne léegi bàyyi na mais tu vois c'est des journalistes qui n'honorent même pas la presse sénégalaise oui moo tax tey bu ñu la presse sénégalaise ñun la ñun la ñun ñoo tax parce que si bu fekkee ñun dañu am presse boo xamante ne ñun dañuy nangu faire le sale boulot mais il faut s'attendre à des à des à des à des insultes envers la presse là moi je suis pas d'accord pour nous saga presse mais ñun ñoo koy occasionné parfois ñun ñoo koy occasionné cette presse alimentaire là boo xamante dañuy diffuser ay nouvelles yoo xam yudul yu dul il yow sax da ngay lire dans les rus dans les non mais attends il faut que ko faut foo jëlee information bi foo jëlee information bi. je n'attaque personne mais c'est un constat boo xamante ne moom fi au Sénégal c'est un constat. te loolu foog ñu wax ko ñun ñooy njëkk a wax loolu balaa ñeneen duñu ci wax ca ça la réalité Fallou. Hmm. Euh, donc moo tax ma ne la il faut que nit ñi dal fii man li ma gëm mooy dëkk yoon ak yoonal ku am problème demal ci fu mbaxana doone benn bu fekkee ay nit dañoo jël dañoo luubal nañ leen bàyyi avec yoon. C'est pour cela qu'ils ont installé le pôle judiciaire financier, composé de 27 membres. Alors, c'est clair. Maintenant, ce pôle judiciaire financier, Bobo, nous <laughs> le sale boulot. alors c'est clair 27 magistrats le alors c'est clair alors c'est clair les bénéficiaires financiers. alors mi c'est clair par rapport à li nga xamné que modi nous job si donc nak dem exactement foofu ci division des investigations euh, criminelles alors mbokk qui ba série yéen émission li nga que mu le truc de matinal si vous venez de nous rejoindre afin euh, leneen itam sur le xibaar ba tey euh, suñu daal par rapport ak euh, la reddition des comptes afin dem système mafieux bi nga xamni itam digte woon na loxo te ñu doon doon waxtaan bokk na si ki nga xamné que modi di Diallo et compagnie afin danoo ne dafa am problème bopp mo waral mu jël koppar gi si li nga xamné que modi observatoire de qualité des services financiers batay nangul wax jàpp ni dafa xaw a euh, tàggali kook sagoom daal. ko man xama fàllu hmm. manipulation weesul nga ne ku jël koppar gi dafa am problème bopp ku am problème bopp leneen lay tal. Habib Ndaw Habib <laughs> Ndaw loolu laay wax bi Habib Ndaw xam wax bu dofee. wax bu dofee man loolaa gëm wax bu dofee nopp yi koy déglu ñoo war a wér. Hmm. parce que ku am problème bopp du tal xaalis du tal xaalis leneen lay tal. mais du xaalis <laughs> xanaa kay da ngay wax contraire bi ku am bopp bu baax mooy tal xaalis mooy tal lu ñuy lu ñuy luubalee xaalis lu ñuy modifier walla lu ñuy saboter ordinateur pour mu bañ a am trace